yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawféex waaye da ngeen am xaas tawféex ju am nag xaas la santeen ci yàlla bu baax te ci kenn mag secret ba secret baa sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 su ko defee mu indiwaat yeneen bunt yoo xam ne da koy tëkkee rajab baatab rajab xam ne bunt bu ne ñett abyaat lay doon incha allahu kon bunt bi mu tënkee muhammad mi ngi tàmbalee mahal abati la bi xaqin yuhmadu xani ya qablu qutbuna muhammadu hamdi liman huwa al ilahu samadu wa yantahi bihi li xayril kamadu man alayya sol jalali ahadu bi minnanin fi abadin la min allazi ma hindahu la yunfadu abxil muna wali sukuuri axfidu dafa ha baatilan wa ma la yuxmadu billahi anni xabla sa muhammadu dafa naa noonu la tëddee noonu allahu kon day sant rek li ko yónent bi defal li ko yàlla defal mu jël miim ak muhammad gi farna al abati la neen yi neen mooy caaxaan bi xaqin ànd ko dëgg goo xam ne yuxmadu santees na ko far na ko xanniya mu wëlis ma xablu ci lu jiitu la ko far kan moo ko far mu ne xutbu naa sunu xutbu bi Muhammadu te mooy Muhammad nee na sunu xutbu bi nga xam ne mooy sunu njiit ñun ñëpp ku yàlla sàkku sa njiit mooy yonente bi salaay salaam te turam mooy Muhammad nee na yonente bi far na ci man neen mu joge ko ci man waaye fu ma toll yonente bi xirtal na ma takkaayal na ma dëgg goo xam ne mooy diinay islaam mooy dëgg gu yàlla sant diinun siwa islaami la yuxmadu inda al-ilaahi wa bii nu jadidu defe naa diine jooju ñëw di ko yeesal moo tax mu ne Muhammad mi nga xam ne mooy sunu xutba bi di Muhammad ci lu jiitu ba ma demagul géej ga ci lu jiitu ba ma nekkee ci géej ga mboolem neen yu nekkoon ci man ci ay abatil yëpp yonent bi dàq na ko waaye bi mu ko dàqee ba noppi dindi ko ci man daf maa saxal ci dëgg gi nga xam ne yàlla da ko sant yonent bi sallallahu alayhi sant ko moo tax mu ne maha far na al abatil mboolem xeeti neen yi muy wax lu amul bi xaqin ànd ko dëgg goo xam ne saxal na ko ci man dëgg gi nga xam ne yuxmadu santees na ko far na ko nag ñoom nee ni anniye moolis ma xablu ci lu jiitu la ko defoon xutbu naa sunu xutbu bi Muhammadun turam mooy Muhammad mooy ki def loolu am di sama cantu xol li man ñeel na ka xad huwa moom al ilaahu sa dëgg-dëgg mooy buur assamadu mooy ki ñëpp jëmalay aajo te jublul aajo jëm ci kenn wa yantahi dana jublu bi ci darajaam bi ci darajaam yonente boobu li daw jëm ci kudut man alkamada lépp luy xeeti njàqare sëriñ bi nee ne sama cantu xol maa ngi koy jox yàlla mi nga xam ne ca dëgg-dëgg moom rek ay buur ah, moom rek mooy buur yàlla mooy yàlla yàlla yëpp <laughs> tabaarikalla moo leen moom waaye mooy kilifa gu ñëpp jëmale aju te jublu aj kenn mooy ki nga xam ne moom yàlla dana jëmale ci darja yonent bi sallallahu alayhi lépp luy xëyri jàqare man sëñ Tuubaa mu daw jëm ci ku dul man man na xéewee na aliye ci yàlla kay borom màgg ka al ahadu tey kenn xéewee na ma bi min na nin xéewal yoo xam ne laa tukk xadu deesu ko weddi mukk ku ko xool gis ku ko xoolul gis te fii abadin sax ba foofu lay nekk rek xanaa loolu ñëpp tamit seen bët yàlla muy borom màgg gi di borom jalal di axat doon kenn ku wét képp ba mu sàkku dara xéewalee na ma xéewal yoo xam ne heure bu ne da ngeen ci teg seen bët kenn du ko weddi dafa naa ne xéewalu sëñ Tuubaa def naa ne ku gumba rek ku gumba mooy weddi maanaam li nga xam ne euh, la wéykat bi da wax borom xol maanaam borom xol bu gumba maanaam moo moo raw moo gën a yées borom bët yu fettagut <laughs> maanaam ki bañ sëñ Tuubaa ki bañ sëñ Tuubaa may ko yàlla defal sa xol bi moo gumba te defe naa ne tax innaha abusaar taxmal absaar tax taxmal xulubu yàlla nee ne du caagee seen bët yi parce que seen bët yaay gis waaye seen xol yi ñoo gumba ñoo ko mant nangu waaw tabarkalla mun man naa alee sul jalaali ahadu bi min na nin fii abadillah tujhadu saa borom may borom màggi tey kenn xéewale na ma xéewal xool gis ko kenn du ko après danaa sàkku mi ne la si yàlla mi nga xam ne maa xend xoo la nekk fa moom laa yéen fa du jeex mukk wa anfidu danaa njëkkantu al anfidu buñ ko waxee ci arab mooy asraha ilal xidmati koo xam ne benn liggéey rek la am mooy heure bu ne ci jaamu yàlla ak yonente bi salaa salaam di ko liggéeyal kooku mooy al anfidu dafa naa ne lu muy ñëw ci xasida yi bëri na nee ne maa ngi sàkku euh, ca yàlla mi nga xam ne la nekk fa moom du jeex mukk almuna mooy samay mbébét maanaam samay mbébét daal bu ma koy sàkku ca yàlla mi nga xam ne du jeexal bu dee nit ñi nag dañuy jeexal kon du ma sàkku ci ñoom dara moo tax fu ma toll sama mbébét yàlla daf ma koy jox parce que du jeexal moo tax fu damay njëkkantu dem di ko sant moo tax mu ne ab danaa sàkku almuna sama mbébét mi ne la si ca yàlla mi nga xam ne maa hind wala nekk fa moom moom laa yéen fa du jeex waaye bu mu ma joxee ba noppi wa en fait danaa njëkkantu nag li jëm ci di ko cant fu ma toll ci waxtu ne joñ na baati la lépp luy neen wama ak loo xam ne laa yuux ma du santee sut ko billaahi ci kat na moom yàlla joñ na ko xan nii mu wëlis ma xabla ci lu jiitu saa kii may xool mu may xool kan Muhammadu ta mooy Muhammad Sëriñ Tuubaa sëréewut ak yonent bi ismul isaar la xam naa boobu yonent bi dafa toogoon mu toog tubaarkalla yàlla euh, seen barke nee ne joñ na lépp luy caaxaan ak loo xam ne gërëmut ko santut ko bokk ci diina moom yàlla da koo joñ da koo danoncé ci kattanam ba mu ko defee mu sëri ma mu dàqu dindeeku ci man laataa yonent bi sax di ko dàq fekk na yàlla dàq na ko xam nga léeg-léeg da ngay jàng ci xasida mu ne la yàlla dàqal na ma alquran dàqal na ma yónente bi dàqal na ma waaye nee na la yónente bi sunu borom subhaanahu wa taala moo dàq lépp luy neen ak loo xam ne gërëmut ko ci kattanam ba mu ko defee mu sori ma waaw ci lu jiitu nag la ko defoon waaw lu jiitu bi di ko def fekk na mu def ko xam nga fee na loon mahal abatile bi xaqin yuxmadu xanniya xatlu xutbuna muhammadu bu dee neen yónente bi ko effacé ci man saxal ma ci dëgg fii mu la yàlla ba tey dàq na jëmmi neen moom it moom it ak lépp loo xam ne gërëmalut ma ko ci kattanam la ko dénoncé mu sëri ma laataa yonent bi di ko daq kon yàllaa ko njëkk daq dàq yonent bi da koo dàq lii ci wëyin wi la rek waaye yàllaa ko njëkk daq moo tax mu ne la bii lay andi xab la ci lu jiitu saa kii di ko daq dàq Muhammadu ta mooy Muhammad fekk na yàlla joñ na ko joñal ma ko ci kattanam mu sëri ma moom borom bi subhanahu wa léegi nag ay abyaat yoo xam ne ay rajab la koy tënkee baatab rajab raa ak jiim gi ak baa yii nag bu koy wax rek day da koy fekk ca weer wa maana ba koy taalif ca weer wa la ah moo tax moo tax boo gisee mu tënki ko rajab rek ba koy taalif da ko fekkoon ci weeru rajab moo tax mu jël raaxu rajab ga ne rafantu am daahi li afdalil basar wa maa laa yërimu min busar rafantu yëkkati naa am daahi samay tagg li afdalil basar jëmee ko ci ngën ci mbindéef waaye moom it def na la ko war de wa qaada wommatal na lii jëmee ci man maa loo xam ne laa yërimu du dog mukk min bu sarta lépp ay mbég la sallallahu alayhi wasallam nee na sama sama sama tagg yëpp dama ko yëkkati kenn yeeyooxut ko sama julli yeeg tagge kenn yeeyooxut ko wa anta bi mat yii kas salaati jadiiru loolu ko xoon ci asiru nee ko yëkkati naa samay tagg jëmee ko ci ki ngën ci mbindeefi yàlla te ma yónente bi waaye moom it matal na ma loo xam ne lépp ay mbég la te du jeex mukk gis nga lu dul jeex la suñ tubaab madaleel xaqul mubin maa lil bariyati bi yëbbin wa maa li xayri laa yëbbin min busarin wa niami gis nga mu ne jasaa urab yi payuk sama borom jaa ani ñëwal na ma dikkal na ma jëmii laa yu rafet yu taaru wa qabla haami ci lu jiitu at mii xat mahaa dindi na ci man far na ci man alxumoo la so sox mooy nëbbutu nee na payuk sama borom dikkal na ma pay yu rafet maanaam pay gu yéeme may gu yéeme daal dikkal na ma waaw lu jiitu at mii may taarifil xasida gi kon da koy wax rek ngir sant ko waaye fekkoon na may dikkal ko bu yàgg moo tax mu ne payuk sama borom ñëwal na ma ngir day sant yàlla moo tax mu ne payuk ñëwal na ma may yu rafet ci lu jiitu at mii may taarif xasida ndax yàlla far na ci man géem mooy nëbb nëbbu dëgg mooy bi ñu ko waxee mooy kitmaanul xaq ñi defal la xéewal nga koy nëbbu bañ koo wax kon laata at mii di ñëw fekkoon ñu defaloon ko xéewal moo tax mu ne yàlla din din na ci man géem parce que li tax ma koy nettali ci at mi dama koy sant ngir gën a feddali sant ngir mu dollil ma du ma nëbbu tu ma ko yàlla na ci man nëbbu dëgg moo tax ma gisa ura bi payu sama borom jaa ani na ma jëmii laa pay yoo xam ne yu rafet la rafet ci lu jiitu at mi xat maxaa far na ci man laa li nga xam ne mooy géem mooy kitmaanu raq mi nëbbu ak dëgg bara at bindal na lii ñi xel ma maasara ni lépp lu may bégloo ilaahi sama borom bilaa liqa ay toujours bu may dajeeg nag xaasidin koo xam ne aji kañaan la awullaahi wala ko xam ne ab caaxaankat la yàlla lépp lu may big loo da koy dogal ci man mu neex ma fu ma toll daal ci mbég rek lay dëkk ndax sant yi ma koy def mu di ma dollil heure bu ne def may bégg rek moom yàlla di dogal ci man ak mbégam rek muy ñëw ci man te nee na ku kañaan mooy ni ma yàlla def kum neexut nee na doo dajeteeg man koo xam ne caaxaan rek la ñor te man dëgg rek mu ñor dootoo dajeeg man da may sëri kon mooy refonto am dah yi li afdalil basar wa xaadali maa laa yëribu min busar jasaau rabbi jaani jamila wa xablaha min xatmaha alqumoola bara ali bara ali masarani ilahi bila liqaai hasidin awlahi léegi day jëlaat beneen rajab ne radda ilaya laahu maliqtaara qabla fawatin farihan muxtaara jamilu hamdi wa sukuri abada li xayri baqin bil hurufi obida baana liyal yawma takarumal karim wa qaada li lay sat tarim lépp day sant yàlla ñi déglu ko mu ne radda delloosil na delloosi mooy lu la faatoon ah. Ah. mu ne radda delloosil na ilee jëm ci man allahu yàlla maa la nga xam ne ixtaara tànnal na ko lii ñeel ma xabla ci li jiitu nga xam ne fawaatin faatoon na ma waaye farixaan mbir moom mooy aji bég ca kaw muxtaara doon ku ñu tànn nee na yàlla lépp loo xam ne faatoon na ma daf ma koy delloosil ci ay yiw jox ma ko ne ma Ahmadu lii la faatoon yëpp te fekke wo koon bis ni ko day naa ko ba mu nekk aw say jox la ko radalillahu la si xat fata min al xuyóori wa misaali fata nee na yàlla delloosil na ma la ma rawoon yëpp ci ay yiw ma jot ko waaye nee na sama kenn mënu maa misaal maanaam kenn du ma misaal wa misaali faata maanaam ku yàlla sàkk mënu maa misaal yàlla rek ma xam wax na dëgg de moo tax ma radda delloo na ilay jëmee ci man allahu yàlla maa la nga xam ne ixtaara tànnal na ma ko lii ñeel ma ci lu jiitu fawaati nga xam ne faatoon na ma waaw nga ne lu ma li ma jiitu woon te faatoon ma lépp yàlla delloosil na ko daal di ma koy jox waaye la ma tànnal nag la wax farixan mbir moom mooy aji bég mbég mu rëy muxtaara doon ku ñu tànn <laughs> kon sëñ Tuubaa moo waxal boppam ne moom muxtaar la lu yonent bi sallallahu alayhi muxtaar moom la doonee muxtaar la ko waral mooy yàlla ko tànn defal ko lii parce que lii yombul waaw moom moom rek la ko yàlla defal jamiilu di taaru sama cantu xol wa sukóor yi ak taaru sama cantu cër abadan ba faw li xëyri baaxe ñeel na ngën ci aji des ji nga xam ne xob bi daa jaamoos naa ko bil xuróofi ci xaraf yi xaraf yi may tënkee rajab ak ci mboolem xasidaam yi rek nee su fekkoo ne sama cantu xol ak cantu cër li tax may saatagaay ngeen di dégg ma naan yàlla ma defal li nangam dafa mel ni da ko wutal mbuusu rafet cant yi muy def moo tax cant yëpp taaru xasid yëpp rafet te sant la mu ne taarub sama cantu xol ak taaru sama cantu cër ba faw du ko jox ma sàmba ak demba yàlla laa koy jox moom mi nga xam ne mboolem ku fi des yëpp moo fi gën ndax am yàlla rek fiy des waaye nee na yàllaa ko fi desal muy des ca desam nga kon kon ku fi des itam yàlla moo la gën même ku fiy des itam bu bu yàlla digalee malaaka bi nga wal bëftu ba da ngay faatu am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi dund te kenn gisatul leen waaye faataguñ yàlla faatagul leen waaye danañu faatu moo tax mooy ngën ci aji des ji nga xam ne sama xarab yëpp dama ko ci nekk di ko sant te mooy sant ko mooy jaamu ko yaa alisina na kulloo mi tabar maa sax naa ko waskuro lillahi in kuntum iyaahu bu doon yàlla fu ne balaa mu lay nangul sax njaam koy sant moo tax sant ci la lépp da dajee baana leer na naññi li ñeel ma al yow ma tey jii takkarumal karim takkarumul karim tiraangak yàlla muy aji tedd ji leer na ma naññi parce que ñëw na ci man gis naa ko ci saayit gis ko ci baatin yàlla tiraanga yi may jox gis naa ko ci saayir waaye gis naa ko ci bàtti loolu moom amul sikk sàkk moo tax ne na péng li yéen ma al yow ma tey ji takarumul karim tiraanga yàlla muy aji tedd yi ma defal waxaade wommat na lii jëmee ci man masaratan mbég moo xam ne lay sa tërim du dog mukk nee yàlla jox na ma mbég moo xam ne du dog mukk waaye tiraangaam yi daf ma leer naññ muy tiraanga yi nga xam ne defal na ko kon defe naa ne kuy sant yàlla boo ko waxee lii defe naa ne dana kontaan kontaan goo xam ne kenn du xam fu muy dalee waaye kontaan goo xam ne kenn du xam foo xam ne foofu lay yem waxoon naa leen bi mooy dayo cant cant sëriñ Tuubaa ko man keneen ku ko def ku ne da koy topp ndoor léegi nag muy indiwaat beneen rajab rajab gi moo tàmbalee rajab gi moo tàmbalee rahmaanu ya rahimu ya man radiya anni wa minka liya fi qaradiya julli rasulillahi fiya ma yasur wala tuwajjih li nabiya ma asur billahi wa rahmani wa rahimi xab li xab li maa yóddoomu furxatan bi laa raxab dégg nga mu woo yàlla ci trop bi mu ne ko raxmaanu woo naa woo naa yow yàlla muy xéewalaa kon bépp mi dem ci àdduna yaa yow muy ajjëram ku la soob ci àlaxira yaa man yow mi nga xam ne raddi yaa gërëm nga an nii ci man sëñ Tuubaa ah waye fii dana dikk xaradiyaa sama xemamteef lii jëm ci man min ko bàyyi koo fa yow yàlla woo naa yow muy xéewalaa kon bépp mi dem ci àdduna tey aj yërëm ku la soob ci àlaxira yow yàlla yaay ki nga xam ne man sëñ Tuubaa yaa ma gërëmal sa bopp waaye li ma bëgg di ko xemam jëf heure bu ci yow di ñëw ci man loolu xam ngeen ne lu kawe la mu ne jut na nga tabe li rasulillahi ñeel yonentu bi yàlla bi fii ci sama jëmu ji ci man maa ngi sur loo xam ne da koy bégloo di ko kontaanloo rek yàlla mayal yonent bi ci man sëñ Tuubaa loo xam ne koy bégloo rek loolu koy mooy xasaay di rek mooy xasaay di rek ndax xasaay di heure bu ngi bég ci jaan diñ koy jàng wala tuwajjih te yàlla boo jëmale li nabi ci yonent bi maasur lépp lu jafe mu ne ko daal yonent bi bu ko dara jafe xam nga kéemaan la ko moom ñaanalul boppam waaye yonent bi lay ñaanal ne bu ko dara jafe moom daal heure bu nay dund ci mbégte rek nay am jàppante rek waaw bu ko ko lenn jafe lu mu bëgg rek jox ko ko waaw xab na nga may euh, billaahi ci sa kattan yow yàlla wa rahmaan yow mi nga xam ne yaay kii xéwalaa kon bépp mi def ci àdduna war a xiimu tey ajiram ku la soob ci na nga may lii ñaxal ma maa loo xam ne yëddoomu dana sax ci man ba faw furxatan doon ay mbég bilaa raxab yàlla maa ngi lay ñaan ci sa kattan ci sa tur wi di allahu waaye di ñaan ci sa barkeb tur wi di rahman mooy ki nga xam ne mooy kii xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna te kenn du ko xéewalee mooy kii ajiram ku ko soob ci àlaxira te kenn du ko yërëm yàlla nag ma may loo xam ne damay saxoo mbég rek te du ragal mukk du ma tiit arahab firi mu yaatu mi ah, tabaarkalla lu muy tekki rek mooy tiit mooy ragal mooy alxawfu mooy ko xam ne bu la may dikkalee wala mbég dikkalee ragal topp ca waaw mooy safaanu mbég daal furxatan bila raxab maam mbég moo xam ne daal ragal bu mu ci am mukk bu ma tiit mukk tabaarkalla yàlla na ko yàlla defal ñun ñëpp incha allah léegi kon mu jëlaat ba tey boo xam ne rajab la ko tënkee muy ñetti bayit te mooy rabis tajib rabis tajib rabis tajib rabis tajib rabis tajib liyas tajib jamiilu kun lii bi wa amaan waliya tayib doona durrin samaan badiyon xabliya jamaalan yaprahu yaa man li baabihi sukuuran akrahu tëj mu ne rabbi yow yàlla muy aji defaree yaree waay waay istajib nangul ma sama ñaan rabbi yow yàlla muy defaree muy yaree istajib wallaay nangul ma sama ñaan rabbi yow yàlla mi nga xam ne yaay ki yare istajib nangul ma sama ñaan waaye rabbi sama borom yow mi aji tarbiya istajib defal li ma la wax nangu ko waaye rabbi yow yàlla yow mii deferee te koo defer mu deferu istajib nanga ko nangu waaye waaye istajib nangul sama ñaan li ñeel maanaam lii fu ni waxee ne kuy saatagaay la xam nga yaaram ñoom bu ñuy bamtu baat léeg-léeg maanaam fa ñuy toll si diggante seen digganteeg seen borom ci mbégte la ak xéewal yi leen di dikkal ci waxtu woowee nga xam ne xaal bañ koy waxee leer yay bay ci borom bi subhaanahu wa taala di bay ko ci borom bi ci xadaram ba di bay ko ci ci yàlla di ñëw ci ñoom waxtu woowee la ñuy dund ci xeeti mbég la ñuy dund ci xeeti yëg-yëg ci li nga xam ne mooy bànneex ci seen digganteeg seen borom subhaanahu wa taala moo tax gis nga tudd na xab wi rek ñetti yoon ba tey weneen xab mu ji mu mu indi si ñetti istajib nga xam ne kon juróom benn istajib si benn bayit rabistajib rabistajib rabistajib rabistajib rabistajib liyastajib yow yàlla nag ma nangul samay ñaan waaye <laughs> mu ne jëmilu yow yàlla muy aji taaru ji kun na nga nekkal lii ñal ma bi jamaalin ci sab taar bi wa amaan ak sécurité wa tayib na nga la lii ñeel ma doona duruñ ci loolu benn xeetu a asamaan samay jamono yi may dund yëpp yow yàlla muy aji taaru ci damaa bëgg rek nga sëmbaxtal ma sa taar yi xam nga turu yàlla wu ñuy wax jëmmilu dafa doy waar moo tax yàlla bu ko jëflante ak yow nii rek doo dund benn naqar lépp luy naqar day dindee ci yow waaw safaanam mooy jëlil jëlil moom la doon jëflanteeg sëñ Touba ba mu ko yóbbu ci géej gi nga xam ne léegi da koy teg natt yu bëri natt yu tiis du ko sañ a bañ waaw waaw jësa gis nga xama sa waaye jaawale nil jëm yi lu xaama jam si gis nga nee na ki ma doon ñoddi ci jay sas ba may dem ci tukki ba mooy jëlil waaye ki ki ma dëkkaaleeg ci jam sin nee na mooy ki nga xam ne mooy jëmmil moom yàlla nga xam ne boo fekkee na ko njaarim léegi yàlla di jëflanteeg moom ci turam di jëmmil bu dee ba may bi nag jëlil la doon jëflanteeg moom loolu ñu jàng yàlla yooyu xam nañ ko moo tax ma ne jëmilu kun lii bi jamaalin wa amaan waliya tayib doona durin samaan nang ma teeyalal jamono yi may dund yëpp bu mu benn xar ak naqar ak ba diixo yow yàlla muy aji fent lépp xat na nga may lii ñeen ma jamaalan taar boo xam ne yëpp raxo mooy raw ci taar yi yaa man yow yàlla mi nga xam ne aqaroxo danaa fëgg baa bi ñeel sa bunt bi sukooran ngir cant la xam nga fëgg fëgg boo xam ne moom du ñaan a yi moom bu fëgg dañuy ñaan waaye sëñ Tuubaa moom fëgg buntu yàlla moom sant lay ngir li ko yàlla defal bu yàlla yéexati ji sax man ngeen mu dugg <laughs> kéemaan la wallaay mu ne yow yàlla mi nga xam ne yaay aji taaru ji yaay ki fent lépp te xooloo ko fenn te li nga fent lépp dafa rafet rawatina doomu aadama ni nga ko bindee kenn ku nekk cëram nga def ko fi nga ko war a def jaawlew ko xam ne kenn du nu mel Sëñ Tuubaa ku ku rafetoon taar la boo demee ci barsandi bul koy sëñ Moussa Ka di melal taarub sëñ Tuubaa bi danga naan kii mooy yonente bi bi sëñ Tuubaa doon takk ci jas bu naan ko wax wa jëliilun xullabu bayaaduhu musarbu bi humratin bu ahdabu bu antilum soo rasen même boo demee ci sëñ Moussa Ka noonu la koy taggee nga xam ne lépp lu mu wax yonente bi rek day mel ni nekk na ci ay cëram gis nga radiyallahu anhu moo tax ma ne nag ma may taar boo xam ne day raw mboolem taar yi yow mi nga xam ne sa buntu bii ma ñëw nekk ci buntu bi di ko fëgg defuma leen lu di la sant ñaan siwuma la déedéet li nga ma defal moom la lay sante yàlla na fëqit bunt ba kon rajab yi daf mel ni jeex nañ léegi mu continué waat Muhammad yi sëñ Tuubaa kenn léegi mu jëlaat beneen Muhammad ne maha oyo bi wa maha adnaasi mu ayisun mini malal xanaasi xamittu man asamani min baasi wa kaana lii xat an madda liqati muxjilal qiyaasi man bii yubaahi jumlatal akiyaasi madda ilayya man lahoo jinaasi busaaratan tabqaa bila adnaasi diini ibadata illahi naasi bi hubbi muxtaarin min al muhammadun raisi kulli raasi alayhi taslima xali nipraasi cëj ay waay yonente bi sëñ Tuubaa bëgg mahaa farma xoyoo samay ayib wa ma a far na si samay tër-tër mu ay mbir mu muy aji naaguloo moom yàlla mi nii ci man malal xanaa si mbooloom saytaane may njattaakoon ba maam saytaane ak gaayam yàlla naaguloo na leen ci man mënatuñ ci man dara yàlla dindi na ci man ayib wiis ak sikk bu xoolaale sëñ Tuubaa su waxee am na ayib di tuubal yàlla wala muy wax ne suñu borom din na ko loolu waxin la rek waaye sëñ Tuubaa nee na mosumaa def ayib mosumaa am ayib la ko Cheikh Sidiye waxoon rek wa maa xaybuhu ilaa li ibadati waraa nafxol wara fii subhihi wa masaa yi sëñ Tuubaa mii de biñ ko biñ koy laaj mu def benn ñaas ci moom lan la ko xamal mu ne su fekkee am na ab ayib ayibam leen rek la muy jaamu yàlla ak jëriñ bindeef yi ci suba yi ak ngoon yi dafa def lu xol maol balaa xëy di wax tànkiikul mat bi maa bu sàmm xam ngeen ne loolu du loolu ku nekk xam na ne ku nekk xam na ne du ayib loolu loolu Cheikh Sidiye ko du aw ayib waaye tànkiikul mat yi la maa yus biu sam maanaam niru la aw tagg ci loo xam ne dafa niroog ngañ dégg nga moo tax ma ne maxaa far na bi samay ayib wa maxaa far na àddina si samay tërtër tërtër mooy gàkk-gàkk bi tilim yi nga xam ne mooy nekk ci xolub doomu bi loolu mooy al adnas waaw jam xoo danas mu ay yiisun mbir moom muy aji naaguloo moom yàlla mi nii ci man malal xanaa si mbooloom saytaane ma saytaane ak gaayam yi kuréelam ba taalibeem dongam yëpp njabootam yëpp naagu nañ ci man mënatu ci man dara xamitu sant naa man yàlla mi nga xam ne azzamani musal na ma min min baasi ci wañ sa wakaana te nekkal na lii ñeel ma xat an ci lu dog bilal ti baase ci lu benn lënt ci lu benn lënt lënt nee maa ngi sant sama borom mi nga xam ne musal na ma ci baas baas mooy wañ sa lañ ko wax mooy euh, yu sew yooyu nga xam ne dafa naqaree teqantal lool xeeti njàqare yooyu loolu lañuy tuddee ci arab wañ maanaam mooy njàqare moom lañ koy tuddee mu ne yàlla nekkal na ma ci lu dog ci lu dog mooy lu amul benn werante xat an foo ko dégg rek mooy bilam tiraa i mooy loo xam ne kenn du ko werante lënt amut ci lu ñuy lëntal amut ci yàlla lu ma mos a soxla fekk na ma ci defal na ma ko ci lu benn sikki sàkk moo tax ma ne amitu sant naa man yàlla bi nga xam ne azamani musal na ma min baasi ci wañ sax ci mooy njàqare wakaana te nekkal na li ñeel ma xat an ci lu dog di lal ti baas ci lu benn lëntal yàlla mi nga xam ne moo musal daal ci lépp luy wañ sax di métti doomu aadama bi lépp sama borom musal ma ci moo ma nekkal ci lu benn werante nga xam ne kenn du ko lëntal ñëpp teg nañ seen bët madda tàllal na li xati sama mbind mux jëlal xiyaas yi ka nga xam ne aji gàcc aji gàccal la xiyaas loo xam ne aji gàccal la xiyaas kan moo ko def mu ne man yàlla mi xam ne yu baax yi dana puukaraloo bii ci sama jëm ji jumlatal ak xiyaas yi mboolem woy ñaw yi way ñaw ñi nee yàlla defal na ma ci sama mbind waaw loo xam ne gàccal na di ko xiyaas maanaam daal xiyaas mooy lu mel ni ñu may la dara mu bëri lool nga koy compte par benn am na loo xam ne si misaal bu bëri woon lool kenn du ko mën a compte dañ naan ah lii nañ ko dajale rek waaw ko dajale xam ne nii la toll waaye nag duñ compte naan nangu million la nangu milliard la parce que dafa bëri ba kenn mën koo compte nee na loolu la ma yàlla defal sama mbind nag sama mbind ci la ma ko yàlla defalee nee na ki ma ko defal nag mooy ki nga xam ne mboolem ñu ñaw ñi ñëpp maanaam dañ may puuku réew ñu ñaw ñëpp waaw ñi nga xam ne dañoo ñaw xel dañoo am xel ñëpp sëñ Tuubaa ku ko bañ ab dof la yonente bi dane man daana alkaysu man daana nafsuhu wa amila lima baxdal mawti ki ñëw dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne dafa not bakkanam di jëf ngir gannaaw dee waaye kii jëf nag ngir adduna rek kooku mooy dof bi waaw tirmisu mi solo xadis ba moom it ne maanaam daana gi li muy tekk mooy ëy xasabaha maanaam nit ki dafa war a régler bakkanam ci lu muy dox bis bu ne ci lu muy nooy bis bu ne di ko calculer ndax nooy gu ne yàlla da koy calculer te yàlla xam ne bis bu ne looy nooy kon nit ki dafa war a bakkanam rek la ko ba nga xamee ne du jëf-jëf yi dof fu mu toll day jëf ngir ganaaw ëllëg bu faatoo kon al kayisu man daana nafsoo wa amila lima baxtal mawti aw kama xaala sallallahu alayhi wasallam kon madda tàllal na li xatti sama mbind mux jëlal xiyaas yi loo xam ne aji gàccal la xiyaas maanaam kenn du ko natt li ma yàlla defal ci samay téere samay mbind gàccal la ñi di ko natt ngir bëriwaay kon siru yëpp mi ngi ci mbindam sëñ Tuubaa loo bëgg rek mu ngi ci mbindam sëñ Tuubaa bi kan moo ko def mu ne man yàlla mi nga xam ne yu baax yi dana puukaraloo bii ci sama jëmm yi jumlatal ak yaas yi mboo ne way ñaw tàllal na ilay jëm ci man ilay ya jëmee ci man kan moo tàllal mu ne man yàlla mi nga xam ne lëxoo ñeel na ko jinaas yi samay jinaas waaw jinaas yi samay jinaas ay mbég la ma tàllal yoo xam ne tabqaa day des bi lay atnaas ci lu benn tër tër muy ay tilim maanaam xam nga bu saaratan lay safaanam ba tey mooy njaqre maanaam mooy tër tër nit ki ñaareel bu xolam taqee wala bu xolam bu fekkee rëyin ci alkibru wala arriyaaw wala alxojbu yu mel ni aw yu mel noonu yëpp bu nekkee ci biir xol bi mooy waral du mbég du bég ñi nga xam ne dañuy dund ci mbég ci xaal yooyu du leen bégee xol bu tilim yàlla ci yàlla moo tax mu ne tàllal na ma yàlla mi nga xam ne dama koy jinaas jinaas mooy xeetale lu mel ne nga indi ñaari baat yoo xam ne duñ bokkee lu mel ne ñaari yëqiin yi defe naa ne bëri na ci xasida yi yëqiin yi yëqiin yi sakka fii siri wal alam nga xam ne bii bii fi'al la bii fi'alu nga xam ne bii mu ngi bàyyi ko ci al amnu bii nag tekkut al amnu nga xam ne bii yëqiin yi gi muy firi mooy dana ma fegal waqaa mi ngi bàyyi ko ci waqaa guy tege fegal na gii nag mu bàyyi ko ci al na muy sama kóllite nga xam ne sama kóllite dana ma fekkal lépp luy sikk sàkk moo xam ci du nëbb ak ci du feeñ loolu la ñuy wax jinaas jinaas dafa am lu ñuy wax jinaasu naaqis am lu ñuy wax jinaasu taam am lu ñuy wax jinaasu xayru taam waaw jinaas nag sëñ Tuubaa yëpp da ciy bind moo xam xayru taam wala wala jinaasu tam yëpp da koy def yonent bi da koy def yàlla dafa am na fi wax na tabb sumal muxtaaru min jinaas yi mun suba daal bii bukkal xanaas ginaas yi may xeetale di ko jëmee ci yonent bi maanaam da koy muñ lool da koo bëgg lool Sëñ Tuubaa xasidaam yi bokk na ci dëgg gën a rafet rafetal donte nag xasidaam yëpp rafet lu soom maalayel sam lu soom maalayel sam ak ginaas bokk na ci li gën a rafet te Sëñ Tuubaa jekk ko lool ci moo tax mu ne mada tàll na ilee jëmee ci man mooy jox na ma rek man ka nga xam ne loxoo ñeexal na ko maanaam ginaas yi samay ginaas mooy ki nga xam ne daal ci moom rek lay jëmee sama ginaas tàllal na ma loo ne bu saaratan ay mbég la yoo xam ne tabxaa dañuy sax di wéy bi la adnaas ci lu benn tër maanaam loo xam ne daal ñàkk doon ak bég lay doon heure bu ne rek damay dëkk di bég ngir yàlla jox na ma ko diini sama diina xibaadatu illahi naasi mooy jaamu yàlla mi nga xam ne mooy borom nit bi hub bi moxtaarin ànd ko bëgg ka ñu tànn ka minal unaasi ci nit ñi ci biit nit ñi nga xam ne dañ ko tànn ci biit nit ñi nee na sama mooy jaamu yàlla mi nga xam ne mooy ki moom nit ñëpp moo leen sàkk moo leen bind waaye bu jàllee mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne yàlla da ko tànnee ci mboolem nit ñi nga xam ne yàlla da koo ci nit ñëpp moo tax ne diini abadatu ilahi naasi bi muxtaarin min al unaasi koo koy kan mu ne muhammadun mooy muhammad raisi kulli raasi mooy njiitu bépp njiit lii yàlla doole nekk ci moom taslimal ali dolli xéwal ak dolli góolu yàlla muy aji kawe nibras moom mi nga xam ne mooy sama lamp moom yonent bi salaay salaam al nibras mooy tekki lamp nibrasul wara mbindee fi salaay salaam nee na Muhammad képp ku nekk ci bopp mu njiit yonent bi sa njiit moo xam ci wàllu buur yi adduna yi moo xam ci wàllu xalaafa maanaam wuutu wante lu mel ni sëñ Touba nangam xalifa boo mën a jël ci réew mi rek këy sa njiit nga xam ne da nga faa toogal yonent bi salaay salaam rek ku mën nekk xalifa général rek da nga faa toogal yonent bi salaay salaam dafa mel ni yonent nga fa waaye ñoom ñëpp yonent mooy seen njiit dafa naa ne waxoon na sëmtu sëmmoo si rox su ru aussi dégg mooy njiitu bépp njiit moo tax ma ne mooy njiitu bépp njiit Muhammad moomee salaatu wasalaam ko yàlla yàlla bu mu dëñ mukk di sotte ko ci kawam Muhammad bi nga xam ne man Sëñ Tuubaa mooy sama làmp mooy làmp bi nga xam ne moo may ñiital su ko defee na ma daal di topp ci kawam di dox ndànk nga xam ne saa soo xamee ne na tànkam rek man may man man may tëg man may teg sama tànk waaw waaw ndax yàlla xadama ni laaw alal qudaami bil muntaqa musabital aqdaami nee na yàlla jiital na ma ci kaw surga yi liggéey yonent bi yëpp yonent bi saa su teggee aw tànkam rek ma sama tànk fu ndëggoom jaar ma ni sama ndëggu jaar fa ca yàlla loolu defe naa ne lu kawe kawe la waaye lépp rek bu koy wax ngir saata gaay ngir sant boromam mi ko defal lépp ngir santee ko borom subhaanahu wa taala mi ko defal mu jaar yoon yonent bi salaay biñ koy gis ci saaxir ba keroog ñi koy gëj a gis yëpp ba jamono jii may wax a yéen yoonu yonent bi rek la mos du joxoñ lu dul bi lu dul topp sunu ak alquran sëñ Tuubaa mosu cee teg ak baaraam mosu cee ak tànkam nga xam ne toppoo sunna toppoo alquran dana la woo dana la yedd ci jamono te jamono wax na leen ne sëñ tubaa dafa doy waar gis nga ku defaan dara ci jamono ci taalibe yi du la woo di la yedd de day dajale mbooloom ñëpp ñëpp lay dajale su ko defee nag bu lu mel ni nga sàcc boo sàccoon sëñ Tuubaa day dajale ñëpp ci jumaa ji wala ci këram di waxtaan ak euh, mboolem fere yi léegi buy waxtaan yoo xam nga lu leen di wax da leen kuy sàcc na bàyyi sàcc léegi nag ka moom lay wax waaye nag du jaar ci turu sëñ Tuubaa du jaar ci turu ku def dara waaye moom ku def dara ku ne xam na ko waaye day dajale mbooloo yëpp di leen yedd na yéen nangam yéen nangam su ko defee ki sàcc dana xam ne day mel ni sëñ Tuubaa moom lay waxat waaw nga xam ne kon fu ne gis nga sëñ bi dafa bëri sutura bu ko neexoon ku sàcc wala ku def nangam mu ne la nangam waaw mu wax ko ñëpp xam ko waaye déedéet day daj leen nit ñi kenn ku nekk mu waar la nga xam ne ki sàccoon wala ku defoon lu ñaaw dana ko bàyyi waaye ñi koy digluwaat ñi koy diglu itam danañ ko bàyyi te durusloo kenn ci kanam borom noonu la laan waaree yàlla na ko yàlla fayal subhanaka la ilma lana ila ma allamtana innaka anta al alimul hakim